toutes et à tous euh, bienvenue euh, premier numéro de la semaine bu seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 c'est reparti pour euh, une heure de direct pour waxtaanee lépp rek loo xam ne ñeel na tolluwaayum réewum Sénégal surtout la situation politico-judiciaire euh, du pays ak euh, tension yi nga xam ne mun nañu wax ne mu ngi commencé di euh, annoncer wu pour waxtaanee yooyu les sujets d'actualité yëpp j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le grand Ben Mortar Diop il est journaliste salaamaaleykum Ben. waaleykum salaam Diab c'est un plaisir merci de m'avoir choisi j'espère que je serai à la hauteur. <laughs> Inch'Allah. <laughs> benn ñu dooree waxtaan bi nag waxtaan bi euh, dañ koy dooree avec euh, voilà Ousmane Sonko l'incontournable Ousmane Sonko qui est devenu finalement une réalité euh, si landerneau politique sénégalaise bi gis nga démb rek euh, li nga xam ne mooy méga meeting boo xam ne organisé na ko foofule ak it ay ñoñom euh, si Kër Massar nga xam ne mun na ñu wax ne marée humaine lañ fa amoon discours yi nga xam ne nemmeeku nañ ko de part et d'autre ak discours yi nga xam ne ki nga xam ne moo leen moo nekk leader de Pastef yëkkati na ko foog nga am si aussi ban lecture par rapport ak lépp rek loo xam ne ñeel na wàllu rencontre boobu. je ne pas dire j'ai eu la malchance d'y avoir été, voilà, j'ai eu la chance d'y avoir été. Ah oui? parce que concours de circonstances moom moo yóbbu fu mu ko doon defee. Mm-hmm. ci gannaaw marché bi. donc euh, terrain Yékini je savais même pas foofu la mais ñëw. en circulation ba egg si foofu. Mhm. Euh, ma gis quadrillage bi fa am avec euh, des pelotons de la gendarmerie fees dell. Mhm. Euh, nga bëgg génn Kër Massar obligé dem jaare ji Tivaouane Pël wetu Kër Ablaye Wade ba. jël la corniche nga xam ni que ni kon vraiment y avait du monde. jusqu'à vingt une heures passées moo tax bi ma déggee le matin journaliste yi di wax. au niveau des radios compte rendu méga meeting je me suis dit est-ce que Ousmane Sonko am na lu muy def loo xam ni àndatul ak le mot méga. Mm-hmm. meeting bu mu def méga meeting lay doon. Mm-hmm. heureusement que li muy def meeting barewul. c'est vrai parce que depuis la campagne électorale bii moom mooy sorti boo xam ni que ni def na ko rencontrer des jeunes. et mm-hmm. ma gis fa itam des jeunes euh, très très déterminés. Euh, li ma si jaaxal surtout des jeunes filles. yoo xam ne que ni dañu takku si ni ñu solo et pour ñëw très tôt a qui étaient déjà là sur alors euh, je me suis dit le monsieur neexul ba neexul mais il draine ah, du monde euh, xale yi bëgg nañ ko gëm nañ ko mhm. euh, lu mu wax baax na lu mu def baax na ñoom li ñu soxla rek mooy yaakaar bi ñu am si moom mu bañ a yàkkeeku mhm. li ñuy yaakaar si moom mooy tey mu jël nguuru Sénégal nekk président de la République mhm. et euh, li ma si déplorer mooy que ni yooyu pour ñoom c'est comme si Sonko est déjà président pour ñoom benn formalité la rek mhm. day ñëw rek jaar si kaw ñëpp dem mhm. or y a d'autres candidats qui sont là mhm. euh, lu mu mënti doon la mouvance présidentielle na am candidat Khalifa Sall mi ngi sur le terrain était dans le Baol hier euh, Malick Gakou mi ngi euh, Ansoumana Dione nee na il est candidat Bougane nee na il est candidat ak entre autres Karim Wade est-ce que le PDS kat day indi Karim wala déet mais ñooñu ñëpp il faut que Ousmane Euh, nangu ni que ni ñooñu ce sont des candidats ce sont des adversaires dañuy dañuy compétir et que la vérité des urnes moom moo war a taxaw wala ñoo ñoo war a dëggal seen bopp non ñooñu ñi ngi dëggal seen bopp mais il faut que Ousmane bañ leen banaliser mm. il faut que mu nangu ni que ni adversaire bi da nga koy jox gëddaam bu mët sëkk mm-hmm. mais bu fekkee ne dafa jàpp ni deux mille vingt quatre ñafal ñafal la deux mille vingt quatre damay ñëw jël ko te dem deux mille vingt quatre bu fekkente ni que ni neex na leen yéen waa Pastef l'homopastefensis comme le le le le dit Cheikh euh, Yérim Seck euh, lu mu mënti doon ñun bu ñu neexee Macky Sall du fi 2024 du ko fekk du terminer mandat am mm. là ça devient un problème. dafa war nangu ni mi ngi dem compétition. il va euh, à la quête du suffrage des Sénégalais. Mm-hmm. chaque mm -hmm. sa carte e d'égale dignité ak bosu keneen ki. bu nanguwulee loolu jàpp ni que ni il est déjà président il risque d'avoir il risque de se réveiller au lendemain de l'élection présidentielle 2024. bu ñu ko aussi euh, discours bi euh, démb euh, benn. si mhm. fond beeg forme bi surtout bu ñu déggee Ousmane Sonko voilà discours va-t-en-guerre bi nga xam ne mën nañu wax ne yëkkati na ko démb parce que déjà dama koy paraphraser il disait que j'ai déjà fait mon testament et je suis prêt à faire face à Macky sur tous les fronts. xam nga déjà boo xoolee solin bi. Mhm. Euh, yére bi mu sol daf lay won ni kii dafa pare euh, ñëwul en costume cravate mm. ñëwul euh, sol yére wolof comme am na benn discours bu mu fi def mm. ak yooyu sol mbaxane bonnet carré et tout mm. non non cette fois il est venu en tenue de combat mm-hmm. il s'adressait à une jeunesse qui l'attendait qui qui qui qui qui qui qui avait cette soif d'entendre et de voir Ousmane Sonko mm-hmm. alors côté boobu mise en scène bi ça été très très bien maintenant le contenu man moom laay di wax euh, bi mu dajee dajeeg euh, suñu naataangoo France 24 yi ah. def interview am da nga gis ne que ni mi ngi changé mi ngi bëgg dugg dans ce tabi de de présidentiable. diplomatie mais il faut quand même que muy respecter aussi Macky Sall. il faut que muy respecter le camp d'en face bu mu ko def à l'ivoirienne euh, Gbagbo y a rien en face si garçon viens non mm. bu ko dugalee foofu moom ak Macky Sall day nekk benn guerre dégo mm-hmm. Euh, Macky Sall sous ses de de fauve doux wane ni que ni bu heure xeex jotee daf koy xeexal boppam. Mhm. te dama ragal fi ñu toll nii ñoom ñaar mu nekk problème boobu. parce que boo demee ba nii. frontal voilà mais c'est c'est c'est c'est plus que frontal c'est que ñoom ñaar leen dese rek mooy ñu jàkkaarloo xeex. loolu rek moom moo leen dese. Euh, il a réussi à imposer cette dualité la à Macky Sall ba nga xam ni que ni tey. dafa mel ne Ousmane Sonko rek moo nekk si langue politique yi moom ak Macky Sall. Mhm. jusqu'à preuve du contraire Macky n'a pas encore dit qu'il est candidat à présidentielle. mais mhm. nag mi ngi préparé ay troubam. Mhm. moom Sonko mi ngi préparé ay troubam. mais gis nga euh, dañu toll situation boo xam ni que ni toute la communauté internationale a peur pour le Sénégal. ñëpp dañu jàpp ni que ni Sénégal dafay dem ci goutte le Sénégal euh, va. Euh, tomber basculer. ñëpp loolu lañu la ñu yaakaar. déjà situation bi nga xam ne. Macky Sall sous région Sall n'a pas le le le le droit de laisser le Sénégal basculer. Mhm. il n'a pas ce droit là. lu mu mën def pour que le Sénégal reste debout moom la ñu jox tey suñu devenir pour moom mu mu régler problème boobu. Mhm. quel que soit le Sénégalais boo xam ni que ni dafa bëgg daaneel Sénégal bëgg ko basculer loo Macky Sall a le devoir de de te faire face ku mu mënti doon nag Ousmane ak Mademba ak Mapaté ñëpp. Ousmane Sonko a le devoir, mais de se battre pour que son projet se réalise, mais qu'il le fasse pas dans la violence. xam nga euh, léegi lu ñu ko nar a wax moom moom lay jiitu. Mhm. dafa ne waaw bu ñu taxaw fi naan leen da ngeen bëgg fitna. da ngeen bëgg xeex xaw ma la donc li ñuy wax. il en tient vraiment compte mhm. jël élément de langage yooyu di ko utiliser maintenant contre ses propres détracteurs mais il peut aller euh, à la quête des suffrages xam nga. en 2007 Abdoulaye mhm. Wade bi mu bëggee ñu réélire que Pape et Cheikh dañ ko wooyal wooyu euh, ëllëg Sénégal waaw première chanson bi c'était quoi euh, góor gaa ngi rëbbi mhm. ëllëg suba teel Sénégal dina neex mhm. mais Abdoulaye Wade a dit chanson bi baaxul dindi leen ko parce que góor gaa ngi rëbbi les Sénégalais ne sont pas des gibiers moi je ne suis pas chasseur Ousmane dafa war a nekk moom tamit ci loolu comprendre ni que ni il doit séduire les Sénégalais par un projet hier je l'ai écouté mais je me suis dit qu'est-ce que je dois retenir à part ce côté frontal du discours à part ce côté euh, viril pas violent mais viril du discours pare naa bind naa sama testament mën naa jàkkaarloo ak yow bu ma neexee doo fi toog ba 2024 mais keneen ku ko fi waxoon fii tey ñu jëli la. c'est vrai li mu wax Macky bu man est-ce que pare ngeen deux fois la poser question bi. ñu ne ko waaw mu ne bu leen neexee mu neex ñu Macky Sall du terminer mandat mais ça tu le dis tey opposant bu ko fi waxoon ñu dem jël la sa kër mais pourquoi est-ce que Ousmane peut se permettre tous les discours qu'il veut va te duñ ko jëli. peut-être le camp d'en face euh, de voilà dañoo ragal kii di Ousmane Sonko. aussi il faut le dire mais mais mais mais mais pourquoi avoir peur de Ousmane Sonko. il a toute une jeunesse derrière lui. aussi mais, on a vu les événements de mars dernier. mais euh, ben, quitte, mais mais quitte à refaire waaw ouais, mais quitte à le ces événements de mars deux mille vingt et un bu amaatee Sénégal ñi amee sécurité wu Sénégal yëpp la ñu war dàq. ces événements de deux mille vingt et mais avec discours Ousmane Sonko bi nga xam ne voilà discours va t en bi nga xam ne hmm. seetlu neen ko avec euh, guérilla beeg yooyu noonu ak cette jeunesse bi nga xam ne mun nañu wax ne delloon ko xaar deuxième vague bi nga xam ne à chaque fois moom Ousmane Sonko doloon ko wax ji koy titiyee nii est-ce que finalement euh, procès bi nga xam ne ñu ngi koy euh, wax ne war na am si diggante ak moom ak Adji Sarr il catégorique ne voilà du wuyu ji duñu dem de cette deuxième vague. Euh, deuxième vague mën buy am du dem comme la première fois la gendarmerie nationale. mais est que contenir. parce que euh, est-ce que nekk na aussi aucune armée au monde ne peut contenir un peuple euh, bu bu aucune armée au monde. mais est-ce que on a en face un peuple boo xam ni que ni pare na pour loolu. Mmh. Moi, c'est la question les que je pose. Les qu'ils sont prêts hein, défendre le projet. Mais wóor na ma ni lu ñu pare pare le camp d'en face est aussi prêt. Quand j'ai lu le communiqué, communiqué de la gendarmerie qui dit que le 28 janvier, les contingents 2020, 2021, 2022 dañ leen convoqué caserne Samba Diéry Diallo pour rengager waat ñi bëgg ça veut dire que la gendarmerie va massifier ses troupes. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? L'État se prépare. parce que état bi xam na ni Ousmane Sonko du leen may dara ñoom tamit fas yéene wuñ ñu ko may absolument rien foofu la problème bi nekk maintenant euh, bu ñu xasee ba toll foofu yaa ngi tudd léegi le procès mais Ousmane Sonko est qui pour ne pas aller répondre à la justice parce que jàpp parce que jàpp na carrément. Euh, Abdoulaye Wade c'est un procès politique. quel fii y a que des procès politique ñoom lu leen engagé rek procès politique la. on parle de viol. am na ak amul mais est-ce que boppam noonu noonu. même comme kuy saraxe boppam aussi. Abdoulaye Wade était là dans l'affaire Me Babacar Seye bi mu amee dafa ne xam naa dañ may jël si. deux heures plus tard dañu dem waa gendarmerie cong dañ dem jëli ko mais il est pas se présenter si la justice appelle un Sénégalais pour mu ñëw à la barre dafa war a dem. Mhm. maintenant il a des avocats il a des des des des moyens de défense il n'a qu'à défendre. mais man par rapport à ce procès toujours benn affaire laa si di wax. mais si cette justice euh, mën nañu wax ne carrément euh, elle est déboutée euh, par Ousmane Sonko aussi et bu fekkente ni Ousmane finalement ce que am une justice bu fekkente ni Ousmane Sonko wóoluwul la justice sénégalaise deme bu nekkee président fan lay si kanamu ñan lay juré. ñoo na a vu aussi ce qui s'est passé avec Khalifa Babacar Sall ak doomi Abdoulaye moo tax ma ni la tous ces procès la Mhm. yi ñuy wax dafa am relent politique dañ koy di am parce que ñoom dañuy instrumentaliser la justice pour parvenir à leur fin mhm. mais euh, le président Macky mën na def lenn aussi à la demande des avocats de Ousmane Sonko pour une fois puisque moom lu nekk dañ koy may dans ce pays dafa xeex ba am benn stature bi mais pourquoi pas une justice boo xam ne kenn dafa am garantie internationale mhm. c'est possible euh, j'ai entendu ou j'ai lu ce matin que ni c'est le juge Abdoulaye moo nar Euh, diriger procès boobu. Ouais. moi j'ai foi Ba. il est jeune c'est presque la génération d'Ousmane Sonko xam naa ni euh, je dirais pas tête brûlée la si biir justice bi mais xam naa ni am na. guerrier na guerrier boo xam ne que ni mën na diriger procès boobu du début à la fin te dara du yëngu. un procès de tous les dangers euh, Ben. man gëmuma ni procès de tous les dangers la. pour man si le président Macky ak ña mu àndal ak bu fekkee procès politique la comme on dit complot la ak yooyu gars yi bu ñu soxlaa Ousmane Sonko liñ ko bëgg def duñ ko jaaree ci procès boobu. Mhm. procès boobu pour man bu ñu ñëwee la ñuy njëkk def mooy disqualifier les faits de viol dañ koy dindi. ah oui mu des menace de mort. non mais parce que foofu Sonko luñ ko fa mënti teg les gens diront que ni non non non procès politique la. Mhm. mais ya a moo tax nga gis beneen avalanche maintenant de de de moo moi le cas Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko man le cas Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko laa gën a ragal que cette mais bu Ousmane demee Sonko defi procès boobu ñu ñëw Mame Mbaye Niang ni que mais li nga wax prouvé que. Mhm. quand Mame Mbaye Niang va jusqu'à dire que bu indee le document la man ma ma livré wu à la justice ça veut dire quoi c'est un piège bu ñu tendre Ousmane Sonko na jël document boobu rapport boobu mu yóbbu ko. ça veut n'a non mën na am rapport bi moi je l'ai eu en tant que journaliste. non bi may génnee le scandale du Prodac je savais que je courais un risque bu ma mbay ñaa portoon plainte ma daaru mhm. parce que j'ai le document mais qui n'a jamais été signé parce que rapport yooyu dañ koy contresigné c'était destiné au président de la République mhm. yàlla def na ni ka def rapport bi gaañu na IGF moo ko def euh, inspection générale de finance ñu def ko Mambay Niang signé wu ko donc ça veut dire. Jean euh, Pierre Senghor bu Prodac signé wu ko. Mhm. ministre de tutelle bi signé wu ko. mais donc yow boo ko te ñun la léegi lan moo lay yoon ni ce document la est authentique mhm. looy wax mhm. doo ko mën a prouver c'est pourquoi je dis que c'est un piège bu ñu tendre Ousmane Sonko bés bu yóbboo document boobu ni leen si lii la ñu épinglé Mambay Niang mais il tombe li ñu toppee Pape Alé Niang recel document administratif si la ñuy jëm ak moom mhm. donc il faut qu'il fasse très attention par rapport à ça ce n'est pas un document de l'IGE c'est un document de l'IGF encore une fois dans ce document que j'ai parcouru ma yore ko benn moment amee ko sama téléphone partage ko avec des confrères mhm. amu si fenn foo xam ni dañuy taxaw ni la Mambay Niang a détourné de l'argent xam nga qu'est-ce qu'on reproche à Mambay Niang dans ce document mm. bi ñu signé contrat bi ak Green 2000 muy les israéliens mhm. ñooñu dañu waroon jël contrat bi dem enregistré que au niveau des impôts mm. vingt neuf milliards la TTC ñu ñëw euh, Cefa Itato xamu ne euh, les les trois nga ñëw ñun la demal nga enregistrer sa contrat boo ko enregistré ba pare si ngay dellu si ñëw ñu génne la yow léegi sa sa acompte sa la ñuy dooree fay mais israélien ñëw taxaw ni gars yi mais euh, ñun amuñu lu ñu fayee fi ñu toll ni Mambay vu que c'était procédure d'urgence yàkkamti woon na que dak yi génn mu ni Jean-Pierre Senghor bind ko ni que mais il faut accélérer l'affaire là parce que le président a besoin de résultats fi ñu toll nii. Mm. boobu mu envoyé Jean-Pierre Senghor. mais est-ce légal. mais justement c'était pas légal loolu mu def c'était pas légal. Mm. bi mu envoyé Jean-Pierre nekk son ministre de tutelle Jean-Pierre moom tamit defal leen décaissé leen benn affaire gars yi jël seen xaalis jël seen chèque dem si xaalis boobu la ñu dem enregistré ji fay les droits d'enregistrement. Mm. c'est ça qu'on reproche à Mame Mbaye dans l'histoire mais amul dans le document fenn foo xam ni que ni inspecteur bi def travail ba mu jeex taxaw na benn yoon ni le ministre Mame Mbaye kat am na un franc boo xam ni luubal na ko beneen affaire boo xam ni que ni reproché nañ ko dans ce document là mm. parce que du ñuy bëgg di ko lire ñun journalistes yi mm. mooy suñu consoeur mu Ndour mm-hmm. Faye ñu ni def si gagné benn marché de gré à gré de 63 de francs ñu laaj ko mu ni lii ak lii leen defal mhm. ñu ni que no wa loolu amoo si woon droit mhm. da nga war a rembourser affaire bi mhm. loolu la ñu bind ci document bi ci biir mbir bi ki bind euh, euh, les les les les auditeurs ñu ni mu Maimouna Ndour Faye Mambay Niang moo ko boole ak euh, waa waa Prodac loolu man ñaari grief yooyu laa gis yoo xam ni apporter nañ ko reproché nañ ko Mame Mbaye Niang dans le document raison pour laquelle je me suis dit bon euh, ñëpp dañ naan Mame euh, Mbaye Prodac Mbaye Prodac Mbaye Prodac mais ku si deful attention Mame Mbaye bu la yóbboo justice tu tombes waaw parce que ce document là léegi pour nga gis que c'est extrêmement compliqué mm-hmm. nañ la laaj authentifier le le le document nañ la fan la Mame Mbaye euh, laale vingt neuf milliards et cetera et cetera donc moi euh, damay di wax ni Ousmane Sonko toll na foo xam ni ci réew mi. Mhm. am na fi dayoo boo xam ni dafa war di wax de moins en mois et heure buy wax mu wóor que li muy wax du début à la fin tout est verrouillé. bu defulee loolu il ne pas à l'abri de plus d'une avalanche de plaintes parce que fu ko état bi mën a jaar pour daaneel ko dinañ ko def xam nga euh, njab mhm. dafa am lenn lu am ba am l'opposition sénégalaise tey dafa am leen lu mu bëgg si Macky Sall. muy pas que Macky il y a un service que le, le président Macky Sall doit rendre à l'opposition te mu nekk voowu opposition bi l'opposition voudrait que Macky Sall rendre leen benn service bu rëy en éliminant Ousmane Sonko de la course à la présidentielle. ah oui mu des ñoom rek seen biir nag. parce que da nga jàpp ne carrément euh, ennemi Ousmane Sonko ñoom ñu ngi si biir opposition c'est pas le, le président Macky Sall. ce ne sont pas ses ennemis. ah oui. ñoom dañu jàpp ni le président Macky Sall warul nekk candidat <laughs> mais loolu sax c'est moins grave pour ñoom. <laughs> parce que y' a cette aversion là sénégalais yi bëgguñu Macky Sall ñoom loolu lañ jàpp. Macky bu demee itam day daanu ñoom loolu lañ jàpp mais que booy bi. bu demee <laughs> day ñëw coiffé leen au poteau. parce que dafa def irruption sur la scène. Euh, politique ñëw doublé leen ñoom ñëpp ñëw taxaw si kanam nekk chef de l' opposition. ils se disent que bu bokkee ci élection bi on est foutu. sa victoire est notre défaite mën nañu wax ne euh, Ousmane Sonko euh, ay exactement moo tax gars ñi dañu bëgg du ñu ko wax Macky Sall nag mais dañuy toog di di ànd ak Sonko di dóorandoog moom di waxtaan ak moom mais li ñu bëgg mooy Macky Sall xëy benn jour cher benn prox ndol Ousmane Sonko ne peut pas être candidat il a été condamné à un an de prison wala six mois euh, avec sursis donc mënul nekk ñoom loolu la ñu bëgg loolu ñoom bu leen ko Macky Sall defalee dinañu mayee sabar ni ko alhamdulilah léegi nag nañ des ñu ak yow mais bu booy bi bokkee ci élection bi xam nañ ni ñii si ëpp ils vont à la retraite définitivement c'est sûr waaw c'est sûr euh, côté boobu nag est-ce que Macky Sall dina leen rendre service boobu ah euh, xam naa ne lu lu mu si mën dina ko def. c'est c'est c'est vrai mais mais euh, rencontre bi mun nañu wax ne euh, dafay préparer li nga xam ne moo nekk lancement officiel ñoo nga xam ne bu ñuy jàpp le samedi 28 janvier 2023 de l'opération Wër Ndombo pour enrôler li nga xam ne moo nekk deux. millions de primo-votants pour 2024 euh, mais ak sa euh, bi nga xam ne gisoon nañ ko keroog aussi euh, est-ce que nekkul ne mënuñoo wax ne la cause est déjà acquise. non il ne faut pas aussi que ñu bëgg jël Sénégal yemale ko fii ça quand même il faut que ñu wax ko. Ah, xam nga man damay xam nga Ousmane a été très très bon. Hmm. il a su faire du marketing politique. Ah. segmenter électorat bi. Ah. gis ni que ni euh, les jeunes dañu essentiel ci vote bi. c'est gis ni ñi am de dix huit à trente cinq ans ñooñu mooy essentiel population bi. Mm-hmm. mais dix huit vingt cinq ans ñoo ci ëpp. moom ñooñu lay waxal. Mm-hmm. Ablaye Wade dañ ko ragaloon moo tax femmes yi daawuñu ko woon votel mm-hmm. mais Ousmane a commencé à avoir des femmes qui l'accompagnent. c'est vrai. Ousmane a commencé à se staffer léegi autour de lui ya y des gens. Euh, j'étais bien d'accord que moi ça m'a rassuré gis Habib Sy mm-hmm. ancien ministre d'État mm-hmm. gis Khalifa Sall gis Déthié Fall gis Barthélémy mm-hmm. mais ça va se fissurer pour moi tout indique que Déthié Fall sera candidat tout indique que Khalifa sera candidat Habib va rester avec lui Ndeye Fatou Blondin va rester avec lui Cheikh Tidiane va rester avec lui euh, Guy Marius Sagna va rester avec euh, lui